jërëjëf mbokk yi am mbégte contenté bu baax a baax pour ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy lamb wala bokk luy actualité te bokk ci réew mi dañ koy jëre jox ñu ñuy suivre di ñu bàyyi xel saa su ne di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di ko mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel ngeen di ko mën a am saa su ne tey nag seeti war naa suma xarit suma doom yaay muy pap sar borom Sarène production ku ne xam na ni dëgmal na bis bu am solo mu nekk le 20 avril tombeek samedi bi ñu dëgmal foofee ci arena nationale muy journée bu nga xam te ne bi gala des espoirs laa ko tuddee parce que grand combat mu dox ci diggante Zal Bambay nekk écurie Bawol war cee bëre ak Bébé nekk foofee ci écurie waaye combat spécial bi dox ci diggante Dougar Peul nekk école de Balla Gaye war cee bëre ak Boy Baldé nekk écurie Falaye Baldé beneen spécial bi war a dox ci diggante Boy Dieng war ci bëre ak ki nga xam ne mooy Ramdan Junior Pape Sarr nag lañ seet ci waxtaan ak moom fan la toll ci wàccaay bi ku ne xam na ne nag wàccaay dafa metti fan la toll ci yi parce que li ci des daanaka bëreetul koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu ñëw a baax di la siyaar. waaw maa nuyu bu baax a baax di nuyu sa caméraman bi Habib maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu suñu DG suma xarit suma doomu ndey Kandji di ko ñaanal tey yàlla na gagné chantier yu gën a rëy Sénégal di ko ñaan di ñaanal waaw di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax moom it am teg na ma loxo bu baax muy ETDR ma ngi len di gëreum bu baax mom kanji wa duggal na ci loxom bu baaxa baaxa baax gis na loxom ñewna ma ngi koy gëreum bu baax di gëreum aussi momit mu ngi ba Atlanta Ousmane Cissé momit li kanji di liggéey lay liggéey momit ci sponsor yi la bok sama samay partenaire lañ tamit bu ma jàppale la mm-hmm. Ousmane Cissé aussi di gëreum wa Kouvar Amar wa ñoomu tay ñoom yoré ñoo yoré walu ginaar yi mm-hmm. ñoo yoré walu ginaar yi ak ak ak ak euh, nen yeeg lepp ñoom it tamit teg nañ ma loxo ci suma journée bi di gërëm tamit waa Zador. waaw waa Zador. Mhm. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax sponsor bi Zador ma wax na ci ñëpp dem am na ceeb am na makarona am na lépp. duulin beeg lépp. di wax warga bi mention spéciale Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Ilimane Lam Masata. Kor Ndiak maa ngi gërëm tamit staffu Alburax yëpp. Mhm. xam nga ñoom ñëpp ngi leen di gëreem bu baax parce que taxaw nañ ma ay nit ñu baax lañu ma ngi leen di gëreem bu baaxa baaxa baax di gëreem nak tam tamit tay sama sponsor leader. muy 1xBet. 1xBet waaw tey bu démé tay ba yalla def sama lip lip yembi. Mhm. ñi ño tax. wax dëgg yalla jappalé nañ ma. Mhm. xam nga di gëreem DG bi. Ahmed jeng di gëreem cheikhou Yalla, yi Ousseynou ak Assane. Elisabeth. Mhm. xam nga di gëreem wa Mir Mir Holding. ñomit foofu loolu moo ko waa fa exhibit yëpp. Mhm. waa mil holding maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax. Mhm. xam nga mhm. di gërëm tamit euh, jaaga. képp ku fa nekk rek. woon exhibit képp ku fa nekk. di fa yeewo maa ngi di ñaanal yàlla defal leen jàmm parce que man tamit lii lii lii lii nii ñu ma jàppale. gis naa ci sama bopp bu baax a baax a baax a baax a baax. comme tamit ñun. maa ngi ñaanal tamit suñu président bu bees bi. Jomaay waaw yàlla na yéen bi oyof. xam nga di encourager tamit ki fi jóge bu baax a baax a baax waaw tamit jomaay dafa dama dégg ni daa wàññi mburu cent vingt cinq ma leen ma wàññi bi daf ko mille franc <laughs> daf ko mille franc waaw doo ah jomaay moo ubbi kaay moo tijji kaay jomaay daal dégg naa wàññi na mburu bi cent vingt cinq ah. comme billet yi ay dix mille la woon ah. ay cinq mille man ma def ko billet mille billet billet mille franc ah. loolu yëpp nag bu demee ba am. wan xbet la. moo ci dugal loxom moo tax lépp yomb. Mhm. moo tax ma jël billet yi. def ko 1000 francs mhm. moo tax ma jël euh, bologu ticket. may ko mbëri yëpp. waaw mais nag man loolu mm. mel ka man maa ngi soo gis de tëgg la ba may la euh, ay billet. non benn non benn billet sax duñ la ko may. parce que maa ngi dégg maa ngi dégg ñu bëri dégg naa fit yi quoi. ñu ne man damay yàq làmb waaw mais boo amee sponsor. non dama ko dégg. Hmm. loolu jot naa soo amee sponsor. école la boo amee sponsor bu lay jàppale. dañ ciy jàppale mbër yi. Hmm. nga xam ne lii dafa metti entraînement. man daa ay bologu tike moo doon jaar sama loxo pikin. Hmm. ma xam lan mooy coono tike. kon tey bu yàlla defee ba nga nekk promoteur di tëgg làmb. yow it wanal ni tey ah. li nga li nga doon daj. balaa mbër yi nga koy tëggal mu leen di daj. bañ a topp bénéfice bi rek. voilà loolu moo pour nit ñi comprendre. man laa la wax nii. sponsor bi ma am. moom a may. te lii dama koy dem si gërëm bu baax a baax a baax Papis Dieng. maa ngi koy gërëm bu baax. Mhm. di ko sant. parce que tey sponsorisé wu ma rek. yem ci dama sponsorisé ba pare jàppale ma. ba pare ma tuddee ko combat dugaar bi. ak booy Balde. waaw moo loolu moo tax tey. Mhm. waaw jàppale bi ma jàppale. ba lii ñëw. Mhm. moo tax ma jël drapeau bi tuddee ko. mooy nuyu famille yëpp. Mhm. di ko wax ni avant lii di am. suma booy la woon. avant lii di am Ahmed suma xarit la woon. ñëw na ba Ndaayaan seet si ma. muy directeur woon Exibet du société moo ñu boole. non non ñun ay famille lañu. maa ngi koy ñaanal képp ku fa nekk. parce que barke Seydina Mouhamed taxaw nañ ma. billaahi wallaahi watalaay. jàppale nañ ma bu baax a baax a baax a baax a baax. jàppale nañ ma bu baax maa ngi gërëm ñëpp di gërëm staff Sarène production yëpp soo xoolee képp ku bokk ci axlu làmb nekk ci dam leen puus indi samay mbokk man samay mbokk laa indi samay rakk ñooñ ñooy suma staff waaw ñooñ ñooy suma staff yaa ngi may dégg que muy Bayla Aliou Lobaat ñooñu Bayla Bayla Fama ñu la mm-hmm. comprendre nga Moussa comprendre nga man ñooñu ñooy suma staff ku mel ni yi daal ñing moom it man mun naa kenn koo xamante ne rek moo ma jege ku bokk ci làmb yi daal di ñing la moom yi daal di ñing kese mm-hmm. ak Ibba Ibba bu alburaax Ibba Taal ñooñu noonu mm-hmm. ñooñu rek laa xejal ci suma làmb waaw parce que ñoom ñoo ma jàppale voilà parce que soo xoolee lépp maa ko defal sama bopp yow sa kanam la maa taxawal samay combat mm-hmm. amul kenn yow daal yaa ma jox numéro bébé Birahim ak Zal Bambay bii yow tey ma taxawal combat bi te baat ak tontu la ma la siy gërëm bu baax a baax a baax a baax dama bëggu su ma tëggee sama làmb ba pare bu ma kenn sonal parce que man maa dox sama lépp xam nga làmb dafa xaw a doy waar maa dox sama lépp te coono ñëpp gis nañu coono yi ma ci daj waaw coono yi ma ci daj ñi naan mun na nekk ñi naan yorul ñi naan courtier la ñi naan daa am ku ko financé daa am ku ma jox xaalis lu nekk dégg naa ko mhm. mais xam naa ni mhm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mhm. dinaa dinaa tëgg ba pare lekk sama xaalis ci xol bu sedd te kenn du ma topp bor amul kenn koo xamante ne rek tey ñëw naa biir seen di négocier wala di raay raayal lépp lu luñ ma wax teg naa ko si yoon liggéey sama liggéey di wax waa Pikine waa Sénégal ak axlu làmb ñu ñëw jàppale ma. ma ñëw taxaw ci waa Pikine nag euh, drapeau bi nga dippee Ama Baldé lan moo la euh, marqué ba tax nga tuddee Ama Baldé drapeau bi tey ñu ngi ko mën a tuddee bari na tuddee nga ko moom mais séntuwoo ci moom xaalis. Mm, mukk Ama Baldé 2007 laa ko dessiné jardin xurunaar bi. ma indi fa Bekaay Mbaye muy deuxième bantambaawu Bekaay mbay mm. Bekaay mbay mun naa la ne man maay deuxième personne yu mu seet si jardin ba si teewaayu Gambien Mbër. Tafa Naar Souleymane Balde man bari nañu. Mm. tey ñuy présenter jardin boobu ma koy intégré. Mhm. tey mun naa ne tey su nekkee cent cinquante yi maa ko def si jardin bi mhm. ba dessiné fa Ama Baldé boobu bëriwul arène. Mhm. ñu dem di dem di dem di dem ñu naan Pape Sarr mbëri dañ lay lii soo xoolee. amul kenn koo xam mun nit munul xam ni si kii la for soo bëggee dal ci mbëru Pikine sax Pape Sarr ngay ngay ngay xalaat lu xew Pikine site internet yeeg journaliste yëpp nañu seeti Pape Sarr la yaa ngi may dégg que ma xam ni comme dañ dañ daaw ñu fay bor ama fay na ma ko nag mooy si jour combat Modou Lo bi wax dëgg yàlla ma sentir ni tey mm, li ma xool quoi tey loo xamante ne téye naa ko mhm. ba sama xool sedd si Ama Baldé moo ma ko jox kon tey duma ma jël mhm. lu dul delloo ko njukkal parce que drapeau bi du benn yoon dama ubbi dibiteri tuddee ko Pafalaay dégg nga mhm. ñëpp Sénégal ñëpp xam nañ ni ma mel ak Paate Baldé yaa ngi may dégg sa buggul ku ma wax dara dafay fekk sama benn mbiir ma koy def sax ma dégg mu woo ma téléphone fan nga nekk mm. dégg naa lii ak lii ma ne ko borom dëj bi mun na jooyal boppam dëjam waaw maa la dàq engagé fuuf mm-hmm. billaay wallaay ma koy gërëm moom it Pathé Baldé bu baax a baax a baax a baax muy suma nit bu baax mm. Ama lu tax ma tuddee ko drapeau bii mooy maa ngi doog a lekk xaalisu mbër ci sa poosu Ama la jógee mm-hmm. xaalisu mbër bi ma dalee nekk Pape saar ba tey bi ma nekkee Pape saar ba tey Ama Balde laa musa lekk ñaqam. Mhm. damaa bugg mu leer si ñëpp. Mhm. moo tax nga jël ko defal ko. dégg nga ma ma moo tax ma def ko defal ko lu kenn deful te ma ak Ama Balde du tey man dama ubbi suma dibiteri def ci ay millions tuddee ko Falaye Balde si biir dundam. Mhm. bàyyiwuma ba mu génn àdduna ma tuddee ko kon kër googu duma ma fa silib caaya laa fa. dégg nga. dégg man caaya ci biir kër googu. dégg nga. waaye nag li may wax. mooy mbaru pikin yi. dégg naa du ñu fay bor. waaw ah, mun non mun nañu leb waaye du ñu fay bor <laughs> man de ama fay na ma borom de lu leer laa lay wax mhm. dégg nga ñu ci bëri nag gis naa sortie yooyu du ma si tontu parce que dama am li ma nekk dama am lu ma dëgmal su ma dëgmalee ba pare ah ku ci nekk loo ma def non doo du ma tontu rek ku nekk loo ma def dinaa leeral ba mu leer nañ ba mu leer nañ parce que ñoom ñëpp bi ma ciy nekk kenn fekk ma si amul kenn ku ma ci fekk si du dëgg mhm. amul kenn ku ma ci fekk mhm. gis nga wax waxu dëgg soo gisee danga koy xam ku dul wax lu dul dëgg seen duma du ma tontonteeg moom Boy Niang du ma tontonteeg moom mais reste yi dégg si wet bi ku ma ci kaani ma ma ma bisaab la du wax la lu bon <laughs> parce que ñun biñ ciy sonn xamuñu leen man ay man ay defaral Eumeu Sène otom wala defaral ko ay courant am dugaluma ci Eumeu seen lu leer laa lay wax de. dama li may wax damaa bëgg a dégg man kër maire Séna. laa dëkk en face kër Lobaat Fall biir kër Lobaat. maire Séna dëkk fii Eumeu seen dëkk. maire Séna mooy maamu Eumeu Sène. mooy maire maam Sofi Sène. Mhm. man moo ma yar moo jur Eumeu seen mhm. mooy maamu Eumeu seen moo jur Alaaji Ngom. jur Moodu Ngom. Mhm. kon ana ñu jege woon Eumeu Sène tey ana ñu fa nekk ni tey. dañoo xam maire boobu. kon Eumeu sen lamb def ñoo bolé kon suma suma su kenn di génn naan da ngay jéem tonton tek Eumeu sen dina la wax lo xamanteni hmm. yaang ma def parce que man pap sar man pap sar nekuma ak Eumeu sen rek ñepp ki fa dem hmm. ah am non waaw man buma nek ak Eumeu sen Jordan mu ngi fa. buma nek ak Eumeu sen Omar Fall mu ngi fa. buma nek ak Eumeu sen Tyson 2 mu ngi fa. bi nek ak Omar Eumeu sen Omar cha mu ngi fa. man nekuma ak Eumeu sen rek ñepp yoo ko du dem sen yoon. man duma seytane wu kenn. combat Boy Niang Balla Gaye bi Sénégal yëpp gis nañ li ma ci def. waaw waaw ana mujjantal bi. xoolal xoolal mbir yu ñaaw yi. Mm-hmm. gars yi teg yoo xamante ne xamuñu fan lañ jóge mm-hmm. suñu bëggee suñu suñu bëggee suñu pikin bi defaru. man li mu leen di conseil parce que man fi mu toll nii. li jëntuwuma mu defaru mu ñàkk defaru man maa ngi nii sama yëf. nekk sama yëf. non déglu ma rek maa ngi nii sama yëf. di xaar sama rakk yii. dégg nga lii laa def moo soo gisee mm. ñaari mbëru pikin laa jël. yi si des yëpp. mbëru Dakar laa jël Colobane écurie Bawol yooyu laa dem ndax façon yi ñuy def dégg nga mhm. munoon naa jël parce que Pikine am na seize écuries mhm. mun naa jël ñëw samp samay mbëru Pikine boole kook yeneen mbër mais dam koo deful parce que yi ñuy def moo ñaaw am na solo yaa ngi may dégg Thier may ma ma eggali ci loolu quoi parce que dafa am benn sortie bu ma seetaan 2STV non non Eumeu Sène moo ko def ah, dëgg la jotawuñu dara Eumeu Sène jotawuñu dara de mm-hmm, mm-hmm. li mu wax noonu dam koy dëggal jotawuñu dara jotewuñ dara maa ngi dégg Jordan di ko wax na bàyyiwaat mm. yaa ngi may dégg sa xam nga mm-hmm. man Pape Sarr Eumeu Sène dinaa ko gërëm barki dem mm-hmm. tagg ko défendre ko fukki at ak juróom tey ma ñëw di ko xas mais na xool côté ñu fa nekk na xool li nekk si wetam mu lijjanti loolu loolu laay wax loolu laay leeral si Eumeu Sène jotewu maa ngi yow dara waaye xool ki ne sa wet man non du waaye kooku bëgguma sax tudd turam eh, eh. parce que soq génn na fii mu tont man na ma tontu waaye du ma tudd kooku du ma tudd sax kooku hmm. parce que man laa wax man Pape Sarr bi may nekk ak Eumeu Sène Omar Fall demul bi may nekk ak Eumeu Sène Jordan demul bi may nekk ak Eumeu Sène ñi quitté ci Eumeu Sène dem yëpp maa ngi fa hmm. ñu nekk fa du ma nekkali nettali Eumeu Sène suma toog ak moom naan ko Ama Baldé wala Boy Niang wala lii ak lii ak lii hmm. defar ak mu génn ma jaay sama bakkan ci ay combat yaa ngi may di gis que mm-hmm. nit ki boo nekkowul ki nga jërëjëf ba jërëjëf fajul góom waaye sedd na xol dama déggul jërëjëf ah mm-hmm. ñuy taxaw fii am na seen tontu nga nekk ci wet bi su sooku génnee nga wax su kii génnee nga tontu ku ma tontu dinaa la tontu musiba boo xamante ne di nga xam ne man ak am na seen bi ñuy xamante juddu woo kenn xamul foo jóge. Eh, mais mais Paa balaa jeexal tey sa seex muy Pathé Balla keroog def na benn sortie indi na benn polémique noo gisee sortie boobu noonu <laughs> waaw non loolu dam siy def code ah. voilà loolu da ngay dem ci paate xam nga loolu noonu tey ah. mënuma si avancer parce que xam nga xaw ma lan moo ko wax loo ah. mais man xam naa ne moom lu ñaaw du génn sama gémmiñ du dëgg mhm. voilà gis nga li ma dëgg sama tànk bi bis bu ma ko fi génnee eh, bis bu ma ko fi bu ma gé bu ma ko teggee déggoo li ma ne iska dafa am lu bëri loo xam ne dam koo dëgg bëri na tamit ay mbër yoo xam ne maa ngi leen di défendre dañ doon tooñ waaw dañ doon tooñ de <laughs> léegi nag nekk Pikine waa bi moo tax su ma génnee attaqué la day mel ni yaa tooñ sama mbër. dëgg la wallaay bëgg sa gox. bëgg sa gox. te ñoo ñooñu ñoo may envoyé lien bi. Ah, ñooy to bi billaay wa après laa xam ni. après dama jot ay affaires yoo xam ne ñu ma déglu ko. ma xam histoire bi yëpp. Hmm. du dëgg. ma xam lépp. man nañ ma fi bàyyi nañ ma fi teggi <laughs> parce que man dama sonn seen i bis. dama sonn seen bés. Hmm. loolu mooy wax ji. nit aduna du aduna du neex bay ma genn fi man man barki dem ak barkati dem fukki at ak jurom may dépendre am sen dafa bax dafa wax tay ñu dekk ma micro mëna am sen dafa bon du genn sa gémiñ du génn sama gémiñ dama ne la tank ma gis koku ci wetam nit duma gis buntu kërëm waaw man pap Sarr li kay ma jël décision bob waaw condamné ci yow ok jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp tamit waaw waaw di di di di gërëm tamit suma paré waaw muy euh, Sidi di gërëm wa Pikine mhm. di la gërëm mhm. waaw di gërëm Moussa bima andal, mhm. xam nga ma ngi koy gërëm bu baax di gërëm njabootu Cheikhul Khadim yëpp sëñ sëñ Amsa ah sëñ Cheikh Ummi sëñ Ateex Mbàkke xam nga ah sëñ muntaha bu sëñ Modou Abib man ngi koy sëñ choro, xam nga di gërëm wa tiwa wani, xam nga di gërëm bu baax suma yaay ma ngi koy gërëm bu baax ñaanal na ma di gërëm yi daal ñing di gërëm tamit sama kilifa suma xarit muy Baye Jong mu ngi ba Touba mm-hmm, gis naa ñaan jàppale na ma bu baax a baax a baax a baax. Mbaye Diop maa ngi koy siyaar moom it tey lii yëpp bu amee tey bu lii yëpp amee mm-hmm. non mbay Diop la maa ngi koy gërëm bu baax mm-hmm. di gërëm tamit frère am xam nga di gërëm Modou xam nga sëñ sëñ Modou maa ngi koy gërëm bu baax moom it mu ngi ba 116 di gërëm Amadou Ba waaw borom restaurant Pikine Thier lii bu ko dagg. ceer lii Amadou Ba bi Habib ah. dimbali ma ngir yàlla rek lee bu ko dagg ah. parce que ñii nii barki Seydi daa am fu ñu ma jëlee mm-hmm. fu ma newoon ak fu ñu ma yóbbu mm-hmm. muy Amadou Ba mm-hmm. Mbaye Diop maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax gëm nga nit ki jàppale la nga toog presque si mois mënoo ko dégg téléphone dégg nga yëkkati ay millions may la ba pare yëkkati ay millions laa wax may la soo ko woowee du jël billaahi wal kitaabi buggul sax nga koy gërëm billaahi wal kitaabi de xam nga la la li ma doon sonn ci biir Pikine tey fay baa ngi ni sama fay bi ma am ci Pikine hmm. tey du du làmb moom ma ko may hmm. billaahi ay nit ñoo xamante ne billaahi wala kii kii ma njëkk jox teraangam xam nga fa la dëkk Bambey xaw ma ko sax billahi dama xool sama wéef ma xam ne lii nii ah, ah mun na ma régulariser loo. billahi mu ne ma Pape lii maa la ko jàppale ci làmb ji ñii di génne seen alal di ma ko jàppale fekk man sama lépp mën na. xam nga maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëmaat Ama Balde. Mhm. di ko gërëm bu baax. xam nga di woo sama combat bi si Sène di si woo Boy Niang Bac Seras di woo waa Pikine yëpp yëpp yëpp yëpp ñii doon umpale ndax ma Eumeu Sène dañoo jote wala jotewuñu lii laa si doon leeral mm. munuma Eumeu Sène munuma ñëw di la tagg di la tagg di la défendre mm-hmm. dégg nga jékki-jékki jël benn seytaane teg sa wet mm-hmm. yaa ngi may dégg di la tàggale kook say nit xoolaatal sa toogaay ma lay conseil yow suma rakk nga demal nga jëli ji Omar Fall man moom laa la xamee demal waxtaan ak Jordan hmm. moom laa la xamee demal waxtaan ak sa frère Tyson 2 bi ñu koy indi équipe bi ñu koy jëlee écurie Fallaye maa ngi fa hmm. boobu li yëpp amul di la wan ni man Pape Sarr bi man maa la marsal oxygène ba nga quitté bul faale ba tey yàlla may la teraanga yi boobu ana ñi bi ñu ñëwee ñuy jël sa xaalis di yóbbu fii di yóbbu fii man maa taxaw jëli 2 indi ay tableau jënd ko pàkkalambaay hmm. marsal la tey ba lii am tey ñii nekk sa wet loolu la ñu war a bàyyi nañu bàyyi loolu nañu bàyyi loolu nit ñi bu ñu nekkee seen rakk yi mhm. ñu ñu leen di fonk tey dangay gis benn entraîneur nekk ci benn xale boo xam ne cent mille la commencé ba deux cent millions ku tekkiwul dara ñëw fii di ko tàggale kooku ay nit ñi loolu moo ma metti loolu laay wax ci loolu bugguma nag nga meñaatiiru kenn dama ko bugg wax ci télé bi bu ci teg photo kenn ki may waxal xam na boppam ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liggéey ay bâtiment lañu ko ràññee liggéey bu taaru lool te am qualité lool ñu dëgmal nak liggéey bu yees mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna a mbokk yi bu ñu fofu nak dañuy ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour defaraat ko ba mu gëna baax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu camp militaire de Bargny bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux Mbokki fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci suuf si da ngay defar micropieux yi ba nopi, dal di jël bâtiment bi teg ko ci kaw fondation bi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 ETDR, établissement Touba Rahman. Travaux de bâtiment, BDP, génie civil, fourniture de matériel, prestation de services. ñun Tuto, 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ETDR accessible pour suñu adresse mi ngi fi ci Pikine ci technopole ci yoonu nationale villa numéro 406 ETDR moo lay aar sàmm sa bâtiment ba am sax nag durée de vie bu yàgg kon nag gars yi taw leen gaaw song ji ETDR ndax nag moo fi